di nga dalee bëgg mandaay booba booba yu neex yi xew tey xew wallaay da ngeen di sëy te yàlla tax barke Serigne Babacar da ngeen di sëy rek am na ma jeex waa Mbokk nee na waa Njaañeen waa Njaañeen Oubaac Oubaac waa Njaañe ñooy ñooy ay ñetti mandat lu yàqu mbaax yàlla na yeggale seen sama. maa ngi ñëw bëgg naa ko na nga may sa tuur balaa ak mi dellu si yàlla lu dem ca kañ ngeen di fa ngeen sa nag bàll naa yàlla mën na ko yan na ko yàlla def ci barke Muhammad macha allah léegi nag ah Fatou Gueye sama yaay neen nee la nga def ka la ko def ka njëng nee moom nga def kar Khady Ndiaye ca Pout mooy sa premier njëkke sa njëkke nee na wàccoo daraam nee na daray yaayam tardé wu nee na daraami ay rakkam tardé wu nee na du la gërëm dara ñaanal yàlla waaw moo boo yëngatee guddi rek ngeen ko jóg nee na borom oor yi nee na xijaaneexu borom oor yeeg jéng nee na borom ceeb yeeg jéng nee na borom teraanga ju bari di nga gëlil ci bodi yaa ko moom ah. nee na bodi xale la bodi amul Ablaye Dieng amul nee na bu la baaj doomam nee na sa jubboo tax nee wallaay dëgg la tuube léegi dafa baax loolu am na waa ki du aas ah ah ah, ah Fatou Ndiaye tamit Ablaye Diop jóg nañu de nee na yooyu xale yi nee na famille bi yëpp kër Fatou Gueye nga jël xale yi bëgg leen booy dem yóbbu xale yi. Eh, nee na moom ñu gis képp doomam moom kese parce que xam na dina waaye famille bépp la koy def nee na Modou ko sëyloo. muy ñëw di def si nee a xam na ne ñoom Ablaye Gueye seen xeeta da leen boole yal ko yàlla la dañu ñëw di ko dimbalee sama compagne rek ci bi nee na boo bañ a wàññi muy guddi nee na wala mu wàññi def ko par saa ay baax na ee eh, cinq mille francs ci mbootaay gi cinq cent mille trois cent mille ndimbal quatre cent mille ndimbal téeméeri junni ndimbal téeméeri junni ñaar fukk ndimbal téeméeri junni ak fukk ci ndimbal téeméer ak juróom benn fukk ndimbal téeméer ak juróom ñett fukk ndimbal e ndimbal gi nag mu ndimbal gi un million en attendant les amis de Fatimé parfaitement raison et un million cent un nee na nu pareegunu joxe nañu deux millions en attendant nee nañu deux millions cent deux millions deux cent deux millions trois cent deux millions quatre cent deux millions cinq cent deux millions six cent deux millions sept cent deux millions huit cent deux millions neuf cent trois millions ci ndimbal gi moo ndimbal ndimbal ndimbal ndimbal ndimbal ndimbal na ca juddee woon nee na premier anniversaire am 93 nee na mi ko tëjee woon ca Kilimanjaro nee na ko ak Fandoy Diop ak Mata Thiam nee na nga ànd sama gu valeur ba yaa na tuddee àjjanay Firdawsi mi ñu fayee Kiné Baba nee na ak Awa Yombe nee na ak nee na keroog moom ngeen fanaanoo ba bis set ak a tudaal kala Nogoy Mbay mi toog Nogoy Mbay keroog Njaay lu ne defal nga ko nee na mu tudd fàtte ñaar ki ko kutt mu dee ak ki ko jox mu lekk tareesu nee yow nit ku baax bëgg ko nee say doom bëgg ko nee na bu góor bi nga yow moom nga ko sédde nga ne ko yaay yaayu mbaxanay Fallu yow laa ko may nee na keroog bi ñu langal Fallu lu ne maam Njaay defal ko ko Fatou Gueye di jël sa alal di jëkkati ay piis lépp jox ko na ko yaa moom nday Fallu nee na dalay ñaanal yàlla nga yeggale sa sab te dara jëy Seydina Muhammad ndax ki la bëgg rek la solal jële may noppal na la nee na naan na sànnax yaa ngi dégg nee na jëkkëram ju baax ko nee na càmm nag yaa ngi dégg naka nee na nag yéen a ngi dégg na nag dañoo former nag les amis de Fatou Gueye nee na keroog ban la woowee wax la moom tànn fu ne ko man maanaam itam Fatou nee nga bokk ci nee na mu ubbi kalabaas nga bokk ñu def ndimbal mu bokk nee na loolooy bëgge loolooy cofe nee na buy anniversaire kenn du la ci jiitu nee na ba muy anniversaire France da ngaa dagg billet visa ànd ak sa borom ñëw France ba anniversaire ba jeex ngay waaw Fatou de nee na mënu laa fay nee bàyyi na laa ci yàlla nee na ni nga def Body Gueye comme caane nga ko def ay morom nee da dugg ba biir këram nee bu nuyoog yow nee na moom day teel a fatu nee na da ngay yi ba 3 heures du

nee na trois millions neuf cent nee na ndimbal la nee na ñoo la ko jox ndimbal trois millions neuf cent Adja Fatou nee na ñoo la ko dimbalee te mu ànd ak ndaw tali nag nee na tànkam lu woo kenn nee na tànk bee oyoful nee na tànk bi nag na oyof. nee na nee na tànk bi oyof. nee na fukki junni. ñaar fukki junni. fanweeri junni. ñeent fukki junni. baatu déwén nee na moo la jàppale deux cent. Ndeye Niass yaa riche yaa baax loo baaxee yaa jëfe noo jëfe te ba nga dalee bëgg Mame Ndiaye nag booba yi am bi nga dalee bëgg Mame Ndiaye booba booba yu neex yi xew tey xew wallaay da ngeen di sëy te yàlla tax barke Serigne Babacar da ngeen di sëy rek te yàlla tax yàlla ngeen am na mal jeex macha allah ah waa Mbok nee na waa Njaañeen waa Njaañeen seen waa Njaañeen ñooy ñooy ay njëkk manjaay lu yàgg mbaax